daleen ak jàmm ci leeral TV ak leeral point ñu tekki leen bile article ci kalamay wolof gannaaw ba mu génnee amal ay wax moom Mame Mbaye Niang daal nañ koy tegaat ca palaasam ay bés yu ñu génn Mame Mbaye nag jug dal ci kaw ñi nga xamante ne nag ñoom ñu ay a nekk ay ministre bu ñu sukkandiku ci kaddu yu Mame mu ngi doon xamle ñooñe nag liggéey ba ñu leen dénk mënuñu ci lenn yooyu kàddu nag directeur général bu agence nationale de la maison de lutte ñu gën ko xam ci ANAMO Maodo Malick Mbaye ñu dalaloon ko nag émission grand yooyu bi amoon ci dimanche bi daal dina koy naqarlu bu baax a baax moom Maodo Malick Mbaye mu ngi xam le nag kàddu yi Mame Mbaye Niang yëkkati woon rafetlu ko te Mame Mbaye Niang nag dafay rakkam li ni dafa war a dakk fii ci réew mi bu fekkente ne nag da nga yoroon ay ndombal tànk ci réew mi ngay jog jokkoo te amul benn intermédiaire yow ak ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi nga bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoo ko gën a jege dem sax ba nekk chef de cabinet boo demee nag ba am dara lu la bu fekkee ne sax àndoo ak moom ci ay kàddu yenn kàddu yi nag war a ko yëkkati di ko teg ci ñi nga xamante ne nag yow yaa àndoon ak ñoom di liggéey ngeen bokkoon li nga xamante ne moom mooy boobee gouvernement ci boo xamante ne lépp lu waay wax dafay dem yooyu kàddu Maodo Malick Mbaye mu ngi ko dénkoon suñu nattaangoo yu rajo Futur Média bu ñu sukkandikoo ci Maodo Malick Mbaye ba tey mu ngi xamle kàddu yi lée nga xamante ne nag fi nekkoon chef de cabinet bu président Macky Sall wax na ko nekkul lu ñu mën a nangu yi la nag dafa war a dakk fii ci réew mi te bu wéyee nag li muy jur mooy kenn dootul nawloo ki nga xamante ne nag moom mooy njiitu réew mi ak lii nga xamante ne nag moom mooy mouvance présidentielle loolee nekk loo xamante ne sax dafa ma mujj dépassé Maodo Malick mbay loolee la xam xamle.